doxalee noonu mu daan doxalee. te bu fekkoon daf ci jublu rek. waaw wuyul am na ko allo allo. allo allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax noo tudd ah, ah, man la Aliou Biteye Nigéria. Nigéria. oui euh, président station dañaa woote woon ci bëccëg euh, mais dafa am lu ñuy bëgg lu ma bëgg a firndeel. waaw. ci mbaaxu Sénégal. Mm-hmm. ndax sëñ ji li Sénégal seen baaxaay kenn mënatu koo naxteel la mhm. ndax àdduna yëpp ñu ngi koy wax ñu leen xam ak ñu leen xamul te mhm. bépp doomu sénégalais war na cee kontaan war a yëngu ci fa mu nekk dëgg la te dafa nekk dëkk boo xam ne fi mu ne nii dëkku royukaay la mhm. te ba ñu commencé lii ba léegi ñu ñun Kaduna tey dañuy jóg xëy wër mboolem sénégalais fu mu nekk biir Kaduna dem la nga am mu nekk lu rëy ci ñun ñu dajale ko lépp pour dugal ko suba ci banque bi. Mhm. pour yónnee ko mu ñëw Sénégal dañuy lancer appel ci nit bépp doomu Sénégal bu ne Nigéria ci 37 régions yu fi nekk yëpp. Mhm. nga jug def comme nu Kaduna def. ndax ndimbal na ci fekk loxo borom. ndax doomu réew mi sax tey ñu ngi seetaan télé Sénégal di gis loo xam ne buñ gisee ku leen laaj sax ñu jox la. te loolu dafa ne loo xam ne ñun te ñun gis nañ acte yu daara yi di def ndax depuis booba léegi nelawuñ minute dañuy setante la bët set te acte yi daara yi yi alxuraan yi di def dafa am ñoo xam ne man gëm naa ne ñoo leen ci waroon a jiitu te jiituwul leen ci hmm. ndax daara alxuraan yi ñoo gën a ñàkk aide ci Sénégal te tey jii boo xoolee école yi nga xam ne école privée lañ ñoo ëpp lu ñuy lekk xaalis ci Sénégal te tey dégg guma ci benn école jóg ci école privée yi. dem na kooku boo boo demee eh, olof nee nañu loo nit bu ma doon buur def ko buur a gàcca xay na nit ñi dañuy daada comme dajale leen day jafe boo demee ñoom it ñi ngi ci yoon. ñoom ñi ngi ci yoon parce que ñi ngi ñi ngi yëndu feneen foo xam ne ñun yëgu na ko moo tax xam nga yu noonu se ji sa Mamadou ñun dañuy rek seet rek woote. ndax ñoom ñi ñu nekk Kaduna nekk Nigéria 37 états yi nekk Nigéria mu woo leen nii leen ku ci nekk da ngeen dajale état ba nekk moom ñi ngi nekk Kaduna ñii am na ñoo xam ne ñi ngi nekk euh, ñi ngi nekk Lagos ñoom ñëpp dëkk yooyu yëpp nag ku ci nekk euh, mën nañu dajale centraliser ko daal di koy wax fii mën koo def ci numéro compte bi mu ñëw ci groupe Futurs Médias parce que loolu lu am solo la. ñu bëree bëri nañ daal numéro compte bi il faut ñu di ko leeral loolu il faut ñu faram-fàcce ko ba xam nan lay tëddee. parce que leer leer boobu daf ci am solo parce que ñoom tam bëgg nañ joxe mais bëgguñu tamit bëgguñu ko joxe tam ci erreur. ci waaw il faut daal ñu leeral ko ba mu leer. ndax ñu mën a yónnee liñ ci jox. moo tax ñu ci bare sax dañuy wax naan nañu. defee sa union moo tax léegi ñoom numéro bi ñu daan joxe muy numéro Famara Sané. di 77. 542. 49 moom foo ko woowee 24 heures ah, woo ni ko dugal naa nangam mu daal di dem jëli ko boo ko joxee numéro Western Union bi wala numéro MoneyGram bi ca saa si dana ko jëlee indi ko tey jii bare na mbokk yu nekk bitim réew bi ñu ma woowee moom laa ko jox te xam naa ne bu subaa daan ko yónnee te moom dana dem jëli ko loolu yenn saa yi bu fekkee da nga am jafe-jafe ndax ñëpp itam amuñu euh, kiiwu dem ci banque mën a def opération beeg yu mel noonu waaye lii itam bu ngeen ko ci dugalee donte sax da ngeen di jël ca la ngeen dajale faye ca Western Union bi leeralaale ko ñun bu ñëwee incha allah daan ko leeral mais mais du tere aussi Mamadou li nga wax maa bii ci kaw. waaw bu xonq bii ci kaw. waaw SN. moom mooy. biir réew mi Sénégal. waaw SGBS Sénégal. Mm. bi ci suuf te am bu weex bi. Mm. moom mooy international. waaw boo nekkee bitim réew ci SGBS. Mm. mën nga ko fa yónnee. boo nekkee biir réew mi fii mën nga fay joxe lale. kon euh, ñi nga. ñu dalal euh, transporteur yi. waaw waaw waaw bisimilah mën ngeen agsi. yegsi leen waaw yegsi leen. waaleykum salaam sëñ bi nangeen def. ñu leen di ziar alhamdulilah bisimilah na kenn ki ñëw taxaw nii na kenn ñëw taxaw nii waa kenn taxaw. def. ça va bien euh, ñu jox leen micro euh, euh, sëñ bi. Ah, am na ñu ñëw mi ngi ñëw ah, ah ñu ngi ñëw waa ñu ngi ñëw waa ngi ñëw nan leen dalal egsi leen. kon ni leen ko doon waxee sànq rek suñu mbokku transporteurs yi. ñoom ñoo ñëw ci plateau bi war a waxtaan ak askan wi ñoom it ñu yegg si ñu dalal leen euh, yaakaar naa ni ñu ngi euh, ànd ak euh, sëriñ Pape Sarr di suñu wëlëri wu yàgg woo xam ni wax dëgg yàlla ba léegi di def émission ci rajo ak télévision Lamp Fall nga xam ni ñoo fa ndekkandoo leen yaakaar naa ni ci fukki at moom it muy def ay émission yu am solo di leeral askan wi taxawaayu transporteur yi mm. moom it moom mi ngi ànd ak suñu mbokk yi sëñ Pape ñu jox leen nga nuyoo mm. daal di présenté itam ñi nga àndal Euh, jërëjëf sëñ Jili wala Cheikh Jili sax laa <laughs> euh, ñu ngi lay siyaare bu baax a baax ak euh, suñu ñu fekk ni sëñ Abdou Aziz sëñ Amadou Mbaye gar nañ leen ñu ngi leen di leen siyaare délégation bi ñu àndal nag mooy bu transporteur yi transporteur boo ko wax Sénégal mën nga ak chauffeur waaw kii nii Ousmane la tudd mi dëkk Tëngéej Abdoulaye la ci Maysa Mbaye mi président régional bu Dakar kii mooy Abdoulaye mooy président du groupement du chômeur région de Thiès kii mooy moom Momadou Diambary mi ngi Kolda. producteur et chauffeur région de Casamance Nigérian. chambre de commerce bu Kolda. kii mooy euh, Maysa mbay président régional bu région de Dakar juróom-ñaar fukki euh, garage yi ak ñett moom moo ko jiite mu ci Dakar fii. mooy suñu jaati gi ñu ma président regroupement la moo tax. kii mooy Père Mbaxane Gomis mooy représenté syndicat bii nga xam ni moo nekk CNTS euh, bi Alassane jiite ci région de Thiès yëpp waaw ñooñu daal mooy ñu ñaan man nag may Pape Sarr président regroupement bu gaaru Thiès Petersen. bu ko defee. Momadou benn laaj rek leen di laaj. waaw euh, sëñ waaw da ngeen a ñëw tey jii ci groupe Futurs Médias. Mhm. lan mooy seen tànk. maanaam ñu ne suñuy tànk dañoo ñëw fekk leen ci liggéey bi. nu bokk ci réew mi di ay sénégalais. Euh, bokk itam di ay acteurs du transport daal ci la ñu féete ñun waaye nag dafa yàlla dugal ñu àndoon ministre euh, bu fonction publique xam ñun dañu naroon geraw suba. waaw waaw loolu moo ñu andi fii. Ah. geraw transporteur dafa waroon am suba. waaw léegi nag bi mu demee ba war a am. Hmm. ñu négocier ak ministre transport. Ah. mais suñu waxtaan ak moom dafa sottiwul. ci le ministre fonction publique moom lañu ànd mu ngi nii ci salle bi. ak secrétaire général Alassane Ndoye honorable député ñoom ñëpp ñu ngi nii ci ginnaaw fii léegi ñu ànd ñoom woon fi nag euh, ministre bi ñëw pour de waxi wax askan wi ne gerew bi waroon am suba bàyyi nañ ko suba ba beneen yoon li tax na ñu def ko moo di suñ participation ci réew mi dañoo ci borom réew mi démb bi mu ñëwee jafe yi mu fekk dafa am lu mu ci wàññi tekki suuf comme ñun tam doomu réew mi di ay sénégalais di ay yoon acteur boo xam ñun tam bu subaa buñ ci tegaatee geraw euh, mu metti ñun kon ñun tam nañu bàyyi loolu. waaye nag nu ngi ko amee ci ministre fonction publique waxtaan am ñun mu ngi ko kilifa gu baax la ñu ngi jàllale message yi ni Macky Sall bu amee ministre bu mel ni boobu bu baree rek liggéey bi yëpp dina dox. waaw moom ci. sëñ Mansour Sy mooy ministre mu ngi nii mu ngi fi ñu am. waaw dana dana ñëw ci soit ci plateau bi wala plateau ñoom soxna plateau bi rek dama bëgg ñu waxtaan ñun ba pare. ma woo DJ Boubs. nuyu ministre bi. mu waxtaan moom it. ñu ñu ñu waxtaan ak moom ñoom ministre bi mu woowee ministre Youssou Ndour waaw ci nañ ñëw fii pour jàllale dëgg la dëgg mooy suñu tànk ci dëkk bi waaye terul tam mm-hmm. jafe-jafe yi am ci dëkk bi ci ñu mm-hmm. ngi ci biir bàyyi nañ macha allah muy première waaye du tere tam dinañ ci continuer ak yeneen yéen ci kilifa yi nga xam ne moom la ñu am na lu ma doon ñaan sànq transporteur yi mm-hmm. yaakaar booba xamagu ni daan fi ñëw rawaate na ñu yor taxi ndax boobaak léegi ñetti fan yi yëpp ñi ngi jël ay taxi di indi fii mhm. te ku nekk xam nga ni ne di sore na mhm. ñun ñii rek ñu ci bare bu ñuy ñëw fii dañuy fay lu bare mhm. te am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla yéene gi ñuy ñëwee fii na leen ci transporteurs yi jàppale ku ci mënul maye paas bi indi bi yi ñuy indi fii bagage ak li fi indi lu jëm ci mënd bi nan leen wàññil boo paas yi ñu ñëw Almadies sëñ loolu ñaan leen ko bala ñuy dem parce que ñii ñun ak ñoom doonoo war a séq waxtaan waaye comme ministre bi kilifa gi ma nga ko bu Boubacar Diallo. waaw Pape Abdoul Aziz maa ngi lay nuyu. te di la di la maa ngi lay fay bu baax a baax. di lay ñaanal jàmm te di kontaan ci liggéey bu rafet bi nga xam ni yaa ngi ko nekkee foofu ci plateau boobu àndandoo ki nga xam ni moom moo di Alaaji euh, Sëñ Jili mm-hmm. di ko nuyu bu baax moom tamit. maa ngi lay fay Boubacar. yaa ngi nga toog ak ñoom di nuyu Garmi mu yànj moomu ak taxawaayam bu rafet boobu nga xam eh, ni. démb eh, ba tey. maa euh, ngi la fay ko taxaw fii. maa ngi laa fay. Boubacar waaw. dafa am kilifa goo da goo dalal foofu. waaw kilifa goo xam ni euh, man ak Kebs Thiam ak Adja Degen Chimère ñun ñoo koy dalal. Mm-hmm. mu di la monsieur le ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk euh, fonction publique fii ci réew mi di monsieur Mansour Sy euh, ñu koy nuyu te di ko ziar. te di ko dalal jàmm ci plateau bi nga xam ni moom moo di euh, plateau bi nga xam ni moom lañ tuddee appel d'urgence à la solidarité maanaam ba nga xamee ni jafe-jafe dafa am ci réew mi télévision Futur Média dafa jug taxaw euh, àndandoog askan wi yëpp euh, ñi daal di fi nekk nag ak ki nga xam ni moom moo di Alassane yi di di général bu euh, secré euh, transporteur yi nga xam ni ñoom ñoo fi ñëw tey affilié wu ci CNTS ñoom it ñu daal di fii ñëw ñuy kontaan lool di leen dalal fii balaa ñuy dalal monsieur le ministre damaa bëggoon jox euh, yaay déggéen mu daal di nuyoo ba noppi jox Kebs Thiam mu nuyoo Adja déggéen Chimère salaamaaleykum waaleykum salaam fa la macha allah Boubacar sargal naa la xanaa àndaat rek ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziarat kilifa diine di sàkku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 dinañ ànd ak ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci biti réew dugg ci opito yi nemmeeku malaat yi dugg ci mën yi mais nemmeeku ñi nga xam ne ñooy suñuy mbokk te di dund li ni mel delluwaat fa tabakalla macha allah di jaalewaat réew mi waaye dugg tamit ci prison yi nemmeeku ñi nga xam ne ñoom la caabi féetee gannaaw. Mm-hmm. ñaan buur bi rek nga xam ne moom rek a mën yàlla ñu kàttan dooleel ñu ba réew mi yëkkatindoo tëddalandoo loolu te mu may ñu ci ndam ci barke salaatul fatiha kon lii lay nuyoo askan wi Boubacar. maaleykum salaam Adja Degen ñu nekk ndokk Kebs Thiam nga xam ni moom moo initié tamit li nga xam ni moom moo di appel d'urgence à la solidarité bi nga xam ni euh, keroog ba ñu defee li nga xam ni moom moo di yeewu leen ba noppi ci altine ja ci la ñu àndandoo équipe yëpp daal di génn ci maanaam tali bi ci euh, am salaamaaleykum maaleykum salaam Boubacar maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñooy seetaan wax ji du gudd ndax dañoo togg ak ay kilifa ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ne toog nañoo ñoom li ñuy def boobu ba léegi nit ñi gis nañ ko te ñun defuñu ko nit ñi ñoo koy def ndax population bi ñoom ñoo màbb ñoo wuy si suñu appel ba tax na nag dama lay bàyyi nga dalal monsieur le ministre de la fonction publique ndax lu am solo ko fi indi Boubacar euh, ñoo ngi nuyu monsieur Mansour Sy ministre de la fonction publique monsieur le ministre salaamaaleykum salaam ñoo ngi lay nuyu te di la ziar Euh, bëgg nga massawu coono ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Sénégal ci li nga xam ni moom moo di mbënn mi nga xam ni dab nañu te lu yàlla nam rek euh, kenn mënu ci dara euh, monsieur le ministre. jërëjëf maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu bu baax toogaay bi. di leen félicité bu baax ci émission bi. ndax nit amul dara lu dul lii boo tolloo diggante boo tolloo jafe-jafe. ñi nga gis ak ñi nga xam ne ñooy ñëw wallu la ñoo ñooñu ñooy say mbokk te yéen ci loolu ngeen taxaw parce que am-am ak kàttan dëkkul fenn te suñ boroom ku mu natt nga gis ko te ku tombe ci nattu dangay ngay soxla wallu bis boo toogee ba amatoo ko mënatoo ko ki lay woote kooku lam lay defal mbaax rek kon nag yéen macha allah maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax. li ngeen def yal na leen suñ borom fay. ndax lii ñu nekk day lu metti ñuy masawu coono ñëpp nag bokk kook ñëpp di ko dund ñépp li ma gis fii daal ci ci réew mi gis ko ci koñ bi.